is the living, the sponsor. I run up with your boot, ho is a monster. Yeah, <laughs> be white, be like the king of Samunda, uh, king of the summer. Come be my queen of the come up. Uh, to ñi ngi Power Fitness salle de musculation la et de fitness donc pour dimbali nit ki pour mu am benn organisme bu hors pair donc ci outils yi ñu yore nag tey ñu ngi leen di bëgg a présenter un travail de cardio et de résistance donc travail cardio lay doon pour travail xool bi laaj tamit dëgër pour réveiller muscles yi nga xamante ni moom moo nekk ci biir nit dafa am nu mu composé woo tey ñi ngi am des euh, exercices trois exercices à faire donc fii ñu ngi fi am benn euh, exercice montagne clamé lañ koy tuddee accompagné avec pompe appuyé avant gars yi xam nañ ko donc fii ñu ngi fi am ci deux exercices bu ñu fiy def donc benn bista ce sera squat jump ñu am fi douze de répétition vite fait on va avoir beneen squat de rotation les deux cumulés suñu paree on va terminer avec benn mouvement de résistance pour travailler un peu la partie interne des su ñu paree nag doog a yóbbu suñu client euh, au niveau musculature parce que am na leneen lu mu fa war a def loo xamante ni dafay defar yaram te day maintenir athlète en performance te c'est un athlète faut ñu maintenir ko en performance À très bientôt. Let's put success to the side. I still be this fly if I work the Popeyes. That's a whole lot of spinach, whole game full of gimmicks. Make a fool out of yourself for a post on academics. We are not the same. I am an alien hovering over your city, shutting down all the stadiums, wiping out everything in my radius. Don't play with us. Y'all ain't made enough. Shit pop off. We don't blow it up till we blow it up. Cats better slow it up. Y'all niggas know what's up. My niggas throw it up. We all know that. Got niggas missing the action. Where are they at? See, you niggas never really we been stuffed out, but you got enough mouth to get snuffed out. Duke the rough route. We don't play around here, nigga, we grown. Start applying pressure, give a dog a bone. I'm taking half, it's just that simple. Or I can start popping niggas like pimples. I'ma let you call it, you ballin' till you get hit with them hot things. Now you staggering and falling. Holding up the wall, you got more than enough holding you to fall. You just wasting nigga time, come on, man. bitch gon' do? Not a damn thing, but go with the program. Beast on that bitch like Conan, Bonan. I'ma go with no man is ever gone, nigga. When it's on, it's on. I'll let you know in the fucking song. I got nothing to hide, but you got a reason to run. Come through like till the squeezing is done. That's just squeezing one. Imagine if we all let go, turn your whole block into death row. ci ci ci temps bu réduit bu minimum am na lu mu yëg lan nga yëg sawaay non métti na barke sëñ Bamba sama xol bi carrément maa ngi sant ni carrément musuma liggéey cardio bu mel nii maa ngi sant ni maa ngi soog liggéey fii tey si sa salle ak yow vraiment affaire yi moom kontaan naa si trop parce que ñun li lañ am nit mënoo teg sa bopp lu métti tant yaa ngi jaay yaa ngi dénk sa bopp sa bopp rek yow mi doo teg sa bopp lu métti fa am koo jox sa bopp mu teg la ci code xam nga te yaa ma ci teg ñi ñaan yàlla affaire yi bañ fii saawoon baawoon. waa gis ngeen de donc c'est la réalité mais nag aussi bu nekk day nangu. xam nga moniteur am teg ko ci axe donc looloo permettre donc mun nangu soumettre autant que su demee ci biti kilifa la fay doon mais su ñëwee fii day doon benn ndongo donc ñu ñëw partageante donc ak leneen ak leneen am na leneen lu ñu koy euh, réserver. voilà sigi carrément car surtout la bonne posture foo gaañ ko def pour bañ a am ay blessures cinq boo pensé trop day tirer sur le niveau du dos six sept les abdos pour garder aussi l'équilibre voilà huit poids yu baax pour sécurité neuf dix boo sigi encore beneen jambe carrément voilà genou droit, genou devant fixe, on plie la jambe derrière, toujours la poitrine haute, bolsi d'aspiration bi téye poids bu baax pour la sécurité. 4. Nice, nice. 5 wàcc nank rek doucement on contrôle le poids. 6. résumé comme mu expliqué li ñu jot a comme au début wax naa leen dañ njëkk a def exercice les squats pour solliciter les muscles supérieurs bu jóge na dem nañ si def les fentes jóge si fente travailler les muscles biceps. léegi comme ni ko expliqué chaque fois habitude bi nga ko expliqué li gën a important mooy comment faire l'exercice parce que seetlu noonu saal yu bëri dañuy yëkkati yëkkati mais sans contrôler le mouvement te ñàkk contrôler le mouvement déjà doo travailler muscle aussi yaa ngi def ay risques risques yi maanaam da indi ay blessures léegi moom laa ko ah, naa sama cuisse yi affaire bi maa ngi koy yëg sama cuisse squat yi. Mhm. sama cuisse derrière yi cuisse devant yi. Mhm. même si molo yi sax maa ngi koy yëg. est si benn yoon ndigg li non non sentir ma dëgg wax dëgg yàlla ba benn ndig buy metti wax dëgg yàlla côté boobu bëggoon naa def ma aram ndaw parce que chaque fois dama koy yàgg expliqué squat normal soo ko defee tu cherches les 90 degrés toujours les genoux vers les orteils talons sous les hanches c'est ça la posture initiale position initiale nag chaque fois balaa nga def squat da nga ko war a jël ba pare parce que la majeure partie mooy nga def squat sa ndig li métti parce que tu tires le poids à l'avant soo ko tiré à l'avant mooy waral bi la si ndig di métti moo chaque fois faut toujours garder la posture initiale position initiale d' abord mooy permettre nga def sa mouvement aussi automatiquement da ngay sollicité ngay ngay liggéey c' est très important si bàyyi xel gars yi def léegi bu ñu ñëwee si aussi tamit gis naa ni fente yi yaa ngi doon soufflé xaw nga manque équilibre loolu senti tam boobu waaw ah ba sant sant fente bi da lay mel ni ku lay may léegi côté comme ni ko léegi pour aussi fan boo ko defee mu nga am dinañ manque équilibre chaque fois lay conseillé nga contracté abdominaux yi comme ça tout stable comme ça saf boo ko defee rek day tax nga gagné équilibre léegi aussi ñëwaat si biceps yi bu ñëwee lan nga sentir lan nga gën a sentir ba nga ko liggéey ba nga dëgg naa bu njëkk bu may def biceps du ma du sama yaram quoi mais daan naa biceps lu gën a diis lii mais tey dama ko sentir sama loxoy chargé xam naa mouvement bi moo normal moo kon boog ñu leen di ziar kontaan si baax toujours aussi di leen wax ni chaque fois di leen bàyyi xel si posture yi c'est plus important posture su baaxee da nga automatiquement muscle bi ngay travail posture su baaxee nag chaque fois y a moo dañ leen wax chaque fois ngeen si bàyyi xel you got enough mouth to give snuffed out duke the rough route we don't play around here nigga we grown start applying pressure give a dog a bone i'm taking half it's just that simple or i can start popping niggas like pimples i'ma let you call it you ballin' till you get hit with them hot things that you staggering and falling holding up the wall you got more than enough holding you to fall you just wasting nigga time come on